Useno. Usikhayi. Useno yokule. Okay. Nyona. Wow. Kan mo yedd lay. Loolu ku ñëpp leen jàpp la ngeen salaamaaleykum. lii la jumaa Alaaji Maalik lii la jumaa Sëñ Babacar Si. jàllal l'international bi. Abdoulaye Ndiaye Ngam. bokk na ci fukki nit yi Sëriñ Babacar Si boo xam ne moom. waaw waaw dinañ denc jumaa yi. ñu ni ko nooy def mu génne téeméeri million bi sans teg ci taabal ni bu ko kenn wax ñu dem tuuti ñu woo benn affaire boobu wax CDE ni ko ñëw nga xoolal ñu mbir bi naka lay demee CDE def def facture bi deux cent cinquante millions Abdoulaye Ndiaye taw bi ni man maa ko def ko ngir seen def ko ngir seen muy trois cent cinquante millions waaye ak ñu jot mu waaye ren ñu may la doon kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yal na ko fekke téeméeri gàmm ci dara ji yéen bismillah lam yahuni ila duhulil janna للجمال خير تزار لم يرمي إلى بخير الجنة خير مسارات حريص المنام merci beaucoup nga ñëw ci dëkku Seydil Hadj Malick bi ànd ak Bijou Ngoné nit ñi xam la nga ñëw set si koo xamante ni taalibe Hadj Malick bu mag la sa diggante yi ñaar ma dégg nii altine ak talaata la bis doxu fi lan ngay wax ci waaju baax euh, defe naa loolu wane na ko ah, ginnaaw bi mu nuyoo sa mbokk internet yi ñuy seetaan

ah euh, nit koo xamante ni ku gëm li muy def nit bëgg li muy def nit koo xam ne mbiru àdduna yi boolewuñu donc looloo tax euh, li nga xam ne mooy dëgg ñu mën ko see si. mais dañoo gis ni li nga ko indil dafa dafa dafa dafa suñu njort gis nañ ne bâche bi gis nañ décoration lan moo waral euh, loolu nga waaw moom moo ko bëgg. moom moom da bëgg ginnaaw bëgg gi ko bëgg moo tax ñu fekk si ko ci waaw donc ñun mënoon nañ koo bëgg te moom bëgg ko.

waaw gars yi dañuy test. Mm-hmm. donc euh, dañuy am satisfaction bu baax a baax a baax bu ñu boolee rek ñu ànd ko nga xamante ne. bisu ngoone bi ñëpp xam mu tabisi ci dëkku Seydi Hadji Malick lan nga yëg bi nga tabisi ci ah, bokk. ah bon waaw. Mm-hmm. Ah, bokk. noo fi bokkee. sama kër papa ak ñoo jël ma. mooy sa papa. Moussa Alaaji Moussa Diagana fii Thiand man la tukulóor kuréel njëriñ borom jigéen ñi. borom jigéen ñi man maa ngi nii armeel ci Thiand maa ko moom sama maam moo ko xaal titre foncier la suñu armeel privé la fii. yow bisu maa ngi nii man tukuleel kuréel njëmee borom jigéen ñi wala déggoon ma ne yow li tax ngay tëj réew mi. ah loolu la yàlla yalla dogal fi mom mako mom nak mom moom dëgg yàlla fii laa dëkk nag fi la <laughs> laa dëkk sama papa ak sama yaay gi ñuy tëdd fii ci armée lii ci caabi. bi est-ce que xam ne rek la mëna a ah xeyna xeyna no na. non bu mënoo bañ ah, ñak fi mom fuma jadd fu ne mako mom fi fii. mënoo bañ ñak laal ci. di ah fu ma fu ne mako mom moom mo xana ma wax babu yow sama sama borom babu mbenn ah fo ne. ko xam nga élevage ah. borom maamu jindi borom samay borom maamu jindi maa ngi nii toog. xam nga ele ele. kulli ngi jaan. maa ngi nii kulli ngi jaan du leen man la rek fii. man la képp du leneen. léegi nag comme Tivaouane nga dëkk. Tivaouane lépp man la fi ñuy tëjee dañu bëgg nga taru ñu benn saar. taru ñu benn interview bu ci tari saar jaa bañu ñu ko. Eh, ay waay samba ku loolu laa waxat bi dafa dafa dafa dafa méngoo xul wala waxat rek. bisu tay bi wala Fatia ahad rek la méngoo xul wallaahu ahad allahu samad lam dafa génn ko la dégg xam ne da jàng ah, ah kii neex na de man man Zeyda Mariama ma jàng li 97 laa wàcc alxuraan mu la daal waaye ki luy problème am yow est-ce que xam nga ni réew mi dañ laa réeré non non naas waaw parce que ma moo tax sax nga taalal ma micro nii parce que man ku xam ne ni mars ba mars laay wax incha allah waaw du ma dafay intérêt. est ce que borom bis bee tam ne pàcc tamit bokk na ci. yàlla nga gudd fa. amiin ñu bokk ñun ñaan ñëpp ci wàllu seen xarit. ñu ngi lay ziar bu baax jërëjëf. xam naa ci yow lan moo waral nga nga taamu teint bu noir. ah damaa ñuul si. waaw waaw taamu. yàlla ko dogal suñu wax xel dañoo xees waaye man damaa ñuul bu ma neexoon ma. am na ñoo xam bu leen neexoon ñu fees ma gis boobu ba léegi amuloo benn changement ci benn kii. ah non non non moi je suis pas complexe alors myself yàlla mu gudd fa jërëjëf. amiin. sa question bi du ma la wax.